mu ni sëriñ bi nag xam na ni yàlla mën na mën na koo jox li mu bëgg ci lut muy jëf waaye nag suñu borom moo digal jaam ñi jëf kon jaam bi bàyyi def liñ koy def loo ba noppi nag di xeemem li yàlla digge ak ndof la du ay tegg ñi diggante ki borom